yooyu foog ñu xoolaat ko. déjà mode bi yëpp foog ñu xoolaat yooyu yëpp. loolu c'est la question mais en attendant may ñëw ci loolu parce que li mu wax tax na ku mel ni euh, bon gars yi ngi répondre par ci par là mais Thierno Bocoum moom mu ne une déclaration de politique générale en dehors de l'Assemblée nationale serait un précédent dangereux et une atteinte grave aux institutions de la République naka la ko mën a nekk. non cest à kii dafa ne loolu mënoon na nekk Ousmane Sonko dafa ne je ne ma du ma soumettre si déclaration bi neewul du ko def mais dafa am préalable boo xam ne aussi kenn mënu ko dindi dinaa ko def dinaa ko def faaw lii mais nañ delloo buum si mboy mboy bi nañ delloo buum si mboy bi cest à dinaa ko def bañul d'ailleurs même il dit pour respecter la la séparation des pouvoirs maanaam nangu na ne lii constitution moo ko fi teg Mhm. nangu na ni lii war na ko def mais pour mu def ko condition les conditions pour et pourquoi dajewul aussi mooy amul délai bu koy app mhm. tey bu ne bu ne naa xaar dama koy def dans dans sept mois. Mhm. tamal su mun dara. lan moo ko tere. donc même bu président dangereux. je pense aussi que dëkk dëkk bu nekk. si situation yu mel nii moo war a dem tax. ñuy gëstu aussi. surtout ça suñu institution yi. surtout ça c'est-à-dire c'est bon dafay révéler aussi les failles de nos institutions. Mm-hmm. si un parlement ñu naan règlement intérieur frauduleux la. waay mm-hmm. lan mooy nekk crédibilité boobu institution. ça ça pose problème. est-ce que am na assemblée sax amatina crédibilité. ndax bu ñu euh, déggee euh, ay jur yaay am crédibilité yàgg na moom. kon musul am crédibilité. wala gëj ko bon bi ñu koy indi mooy comportement bi parce que souvent gars yi naan ñu xeex. ñu ngi saagante loolu du lu bees loolu c'est pas grave. non mais dégg nañ dans les plus grandes démocraties. Mm-hmm. entre guillemets. ndax jàpp nañ fa moom muy en France muy aux États-Unis muy en Angleterre partout di am ay assemblée yoo ne député yi ñuy empoignante jóg saagante loolu c'est pas méchant. Mm-hmm. c'est pas méchant. Mm-hmm. mais li am solo mooy quels sont les li li tal suñu institution yi wax loolu amul parce que aussi parlement c'est un lieu de de débat. Mhm. c'est un lieu de contradiction ah oui, donc des fois les passions se déchaînent c'est pas méchant loolu. dóorante bi saaga bi fépp lay am c'est pas la question. Mhm. mais la question mooy ñu xool yan charte. Mhm. la ñu créé institution yoo xam ne. c'est-à-dire Sénégal dafa raw ay institution fi ñu toll nii ti xëy na débat yu mel nii. dina tax ñu poser les vraies questions pour apporter les vrais les vrais les vrais les vrais les vraies réponses. te aujourd'hui aussi. am na ñoo xam ne tey est-ce qu'ils la légitimité. Mmh. c'est vrai que c'est des citoyens tout citoyen a le droit de se prononcer. sur mhm. la situation du sur la situation du pays. Mhm. mais ku nekk aussi war ngay xool sa toogaay di di di di natt sa bopp. di natt sa bopp. parce que sa kaddu kaddu ak borom ñooy tolloo. Mhm. kaddu ak borom ñooy tolloo. <laughs> am na fooy toll soo waxee ñëpp dégg la. am na wax foo tolloo soo waxee kenn la dégg dañ naan kii lu mu représenté pour wax mais je reconnais au moins il a le mérite d'avoir donné jox na argument am. ah mais jox na argument uh-huh. uh-huh. man particulièrement je suis pas moo tax mais jox na argument mais argument yi taxawul. Euh, pour man Mbow moom de mooy waa Benno Bokk Yaakaar ndax moo wax ci seen kàddu euh, moom nee na donc euh, mbir yi ni mu mel c'est c'est honteuse ah euh, doxalin bi c'est honteux et c'est injustifié donc moo tax moom mënuñu ko cautionner léegi ma lire ci benn benn paragraphe rek mu ne dans un souci constant de respect de la séparation des pouvoirs et du principe de l'égalité je ne tiendrai pas ma de devant cette assemblée donc loolu Ousmane Sonko moo ko wax mais moom mu ñëw tegtal ci dara mu ne cette dépendante honteuse et injustifiée ne sera pas cautionnée par la majorité parlementaire qui exige la présence du Premier ministre pour faire sa déclaration de politique générale, sauf à vouloir s'inscrire dans une logique de défiance des institutions démocratiques comme à ses habitudes d'opposants. léegi dañoo wante dëgg rek. xam nga loo bañ lëkk. Mhm. nag mu ko ne am na nopp yu gudd. loolu dëgg li ñëw aussi xam nga aussi ça c'est des déclarations politiciennes xam nga Sénégal dafa nekk daara yi lëkk. Mhm. jarul jaay gudd nopp. jarul ndax ku nekk mi ngi leb ay noppam toog si. Mhm. tey euh, moi chaque fois yi mhm. quand les les rescapés de l'APR de l'APR des rescapés. am yenn position yi. ay rescapé lañ. <laughs> Macky Sall ñoo parce que Macky dem ñoo fi des <laughs> pour quelques mois encore j'espère donc je les appelle des pour le moment donc ni ñu yoree assemblée bi. ñoom fi ne nii ñoom waroon am kersa di yëg seen baat di wax yenn yi tu sais pourquoi. <laughs> lu euh, euh, la dernière fois. maa ngi dégg si ñoom ñu naan waaw euh, dund gi dafa cher. Mhm. <laughs> mais dërëg bu cher bi kan moo ko fi créé. <laughs> ku ko fi bàyyi. <laughs> ah ku ko fi bàyyi du Macky Sall. ah fi bàyyi dund bi. Ah. léegi ñoom ñu ngi soxam ñoom euh, deux mois après. Hmm. départ de Macky Sall euh, la ñu soxam dund dafa cher. Hmm. alors que mais cellule politique la ñuy hmm. tey boo xoolee loolu du ma ko tayal di wax soo xoolee audit yi. dëkk bi dañ ko saax saaxee. sàcc yi. waxuma littoral bi. waxuma suuf si. société nationale yi. ministères yi mais gars yi dañu doon mëq alal bi. tey soo xoolee li li ñu am juste comme information te li ñuy war a xam xamaguñ ko. ñooñu ñu nekkoon foofu di gouverner. pour man war nañu am kersi di wax. bu doon am na les un peu de dignité dinañ moytu di wax yenn yi parce que dëgg bi fu mu mel tey ñun ñoo ko fi teg. te loolu déjà c'est scandaleux. war na am kersa tiit nañu wax dëgg buñ nee débandade di ma jaaxal. Hmm. parce que euh, mooy li ma la wax sànq rek. Hmm. loo bañ bañ euh, lëg. nangul ko nangul ne am na guddi noppi. defe naa tey bu ñuy wax euh, c'est la peur qui a peur de Sonko. Hmm. c'est la peur c'est la peur qui a peur de Sonko. mais pas Sonko qui a ah, peur. Ah. et ça son parcours l'a montré depuis 2021. Tout ce qu'il a vécu, ça que c'est son, c'est la peur qui a peur de son combat. C'est pas Sonko qui a peur. Et ça, c'est des faits. <laughs> c'est la peur qui a peur. C'est la peur qui a peur <laughs> dafa ragal dem assemblée loolu loolu moom moom même xale bu tuuti soo ko waxee mu netaan la waaw loolu waxu daanu saret la. te xam nga aussi chaque fois la moo dangereux nit ñi dañuy dem ma xam ne ñoom ñoom seen bopp. Mhm. ils se prennent au ils se prennent plus au sérieux mhm. maanaam bu ñuy waxati du waxu du waxu conviction cest à waxu contexte la waxu position la. Mm-hmm. man maay du Mbow man ma nekk euh, APR li laa war a wax. Mm-hmm. mais lu ñu wax li ñu gëm li yoon donc c'est des c'est comme on dit à la guerre que wala guerre quoi. Mm-hmm. est-ce que mën na wax leneen. mais je pense que ñoo ñëpp ñëpp ñëpp tey nopp mu leen gënoon war noppi raser les murs ak fi ñu def Sénégal tey fi ñu ko indi leneen moo doon seen euh, seen tër mais. parce que tey bu Ousmane ko demul ban moyen la ñu am pour obliger ko mu dem. moo ma jaaxal. Ah? est-ce que am nañ beneen moyen. ban moyen la ñu am. non damay laajte. ah laaj ko ñoom ñu naan <laughs> demandaat ni nga koy booy demandaat di ko dàq indi ko léegi comme dafa daw ni ñu koy dàq indiwaat ko mu toog ça ça pose problème et comme si di lan moo gën ñoom au lieu i dàq Ousmane Sonko ne comme nee na dafa demandaat mm-hmm. mais lan moo leen tere. ñu réparé kii bi. fandaan eh, def réglementaire def ko fi ko war defee ñoom la c' est pas le député burkinabé c' est pas le député togolais. Uh-huh. c' est pas le député mozambicain. Uh-huh. léegi ñoom la moo leen tere defaat bi la jàmm na ñooy. Uh-huh. moo gën si gàttal xam nañ ne waxu gàtt bëgg bu gudd. léegi nañ jël réglementaire bi defaraat ko. nañ teg projet de loi ou proposition de loi. selon ñoom loolu exécutif bi. réglé question bi. Mm-hmm. et ñu avancé man laa fi gis gis nga fi leneen. gisoo fi leneen. <laughs> <laughs> alors ma leen di jaajëfal yéen ñu ñuy suivre ñëpp en ah, baax a baax ah, participer à l' émission ah si vous posez vos questions également vous êtes euh, en direct ci Sénégal 7